Cheikh Mamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom wéral ko lool te guddal fanam ba li bëgg liggéeyal sëñ Tuubaa yëpp mu defe ko ni mu ko bëggee te ñu ànd ko ak moom barke sëñ Tuubaa mu mel ne tey daayira Moukhaddamatoul Khidma dafa amoon ay gan yu mu invité woon ci ndogukaay bi ci barab bu tedd bi ànd ko kilifa yi daayira Moukhaddamatoul Khidma ci njiital sëriñ Xaafi bu Saal Imaam jëwrinam yu baax yi teewal ko ci jotaay bi mu mel ne ñi njëkkanteeg waxtu wi ngir kor ginnaaw bi ñu dogoo ak bi ñuy si ci waxtu la dafa xaw a jege lool mu mel ne tey dañ fee dalaloon euh, soxna Amy Sylla mi nga xamante ni moo jiite soxna yi nga xam ne ñooy xëy si ci altine bi di satal barab bu tedd bi ak soxna May Ja Firdawsi ak mboolem ñu koy jàppale ci liggéey bi yëpp ñoom it mu mel ne alxames la ñuy euh, ajjuma xëy si ci liggéey bi di satal barab bi ci biir ak biti bi yëpp ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di leen sant bu baax. mel ne soxna Amy la moo jiite ñi nga xam ne ñoo fiy ñëw ci bisu altine ñu ngi leen sant di leen dalal ci barab bu tedd bi xam naa ne duñu ñu guddal euh, gannaaw bu joxe joxee soxna Amy la mu wax ci turu euh, soxna yëpp nan lañ gisee ndogu li tey ak liggéey bi ni ko daayira Moukhaddamatoul Khidma di ànd ak ñoom waxtu wu nekk euh, cant yi nag ak ngërëm yi ak yeewee gi ci kàddu sëñ Abdou Lahad bu ci lay nekk ci turu daayira Moukhaddamatoul Khidma yëpp. kon soxna mi si la ñu jox la kàddu gi incha allah. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ngi leen di nuyu ci turu Muxaddamatul Xidma nuyu nuyu bi gën a yiw ci nuyu mi ngi nuyu sang yu tedd yi nu jàkkaar lool di sang yu sëriñ sunu sëriñ ci jumaa bu sa ñëpp rek bàyyiwuñ kenn. di leen siyaare bu baax te di leen ndokkeel te di leen jaajëfal ci taxawaay bu rafet bi ci jumaa ji di nuyu sama mbokki jigéen yi nga xam ne ñoo ànd liggéey bi di Moukhaddamatoul Khidma anam seetal jumaa ji ak toppatoo bagaas yi ñoom itam ñu doon ay jàmbaar lool ñu fas yéene nag di soñ sunu bopp bu baax di leen soññ tey jii nag ñu woon na ci barab bi sell bu tedd bi di ñu jox ay ndogu wax dëgg yàlla muy ndogu yu mucc ay yoo xam ne bi wax dëgg yàlla fii rek lañ ko mën a amee nag ñoo ngi leen ci sant leen ci gërëm di ñaan yàlla seen taxawaay yàgg di nuyoo nag ci turu jigéen ñi ci aji làmp jaañ ak soxna Xadi gi bi nga xam ne noonu ànd ak moom di rafetlu seen taxawaay ànd bi ñu ànd ak noonu di ànd bu rafet sell ànd bu yàlla rek tax ak Serigne Touba waaye di sant soxna Naar ka bi nga xam ne moo jiitee liggéey bi ci jëfandikoo ci sama wàll sama wet ak soxna Maga Sall ci taxawaay bi ak niñ koy doxalee taxawu nañ ba jébbale seen sukkaru koor waaye fas yéene taxaw ànd ci liggéey bi di seetlal liggéey bi di seetlal jumaa ji tey fas yéene raxas bagage yi ngi leen di soññ bu baax di soññee nag ci taalu bi ak liggéey Serigne Touba xam ne lépp lu waaye am da liggéeyu Serigne Touba rek daanaka loolu am am la boomut benn boomut benn solo liggéey sëriñ bi rek mooy li fi nekk nan ci góorgóorlu dafa si yéene sax dàkk te xam ne sëriñ bi moom ko koy liggéeyal bu sooba yàlla li nga bëgg lépp tey ak ëllëg da koy am kon maa ngi soñ sama bopp ci liggéey Serigne Touba di soññ yëpp tey soññee nag di wax ne nanuy moytu bu nu tase ci jumaa ji coow li nañ koy wàññi yëkkati kàddu yi daal dañ koy wàññi bu baax a baax a ndax koo xam ne xam na sa tey xam sa ëllëg xam sa démb xam sa bari ci démb soo neexee ci jataayam mbar nga koo moytandiku bu baax te sëriñ bi day fàdd suñuy ba teewul mu jàkkaarloo noonu kon suñuy liggéey te maa ngi sant sama bopp di dégg sama bopp nu wàññi suñuy kàddu ak suñuy kaf ak suñuy ree dañoo soppante lool nag te nekk ñu bari jàmm waaye nañu bàyyi xel yar bi ak teggin yi ak taalu bi gi ak pas-pas bi fas yéene liggéey te yàlla rek tax ak sëriñ bi te bañ a geesu leen bañ a xool leen suñu bopp nekk benn rek dafa seen liggéey sëriñ Tuubaa leen fi fekk ñu suñu jiit jiitoon it ñu fa seen topp seen ginnaaw lu ñu digal ñu def ko lu ñu tere ñu bàyyi ko ñoom day neex nañoo àndal lewet nañ baax nañ dañ lay toppatoo di la dalal di la lijjanti may la jàmm te it nag wax dëgg yàlla luñ ci sañ rek luñ ci def rek sañ nañ ko ndax seen maama fi nekk kon noonu ñuy taalib yi ñëw ci barab bii bi nañuy sellal suñu jëf te fas ko yéene jàpp te buñ ko bàyyi buñ ci dellu ginnaaw luñ ci def ren bu déwénee nañ soo seen def lu ko ëpp ñu ci def tey bu dëstu baa nañ ci def lu ëpp loolee maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di am kontaante gu mag ci bis bi nu teew tey fii ñu dox nu ndogu yu am solo yoo xam ne moom wax dëgg yàlla ku fi ñëw sax saw sant buutu da nga ko soppi waaye nag ñu ngi sant kilifa yi ko jiitee te woonu fi ngir dinu teral ak dinu soññ li ab soññ rek la fas na yéene tax kawaat bu baax liggéeyaat bu baax jàppaat sëriñ ko bu baax te bañ koo booleeg dara incha allah wa taala ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu sunu wayjur yu tedd yi toog tàmbalee ko ci sunu wayjur bopp bi di Soxna Amy Sylla di wayjur di maam di lépp di ko nuyu bu baax di nuyu itam kilifa yu tedd yi mu àndal yëpp ñu di ci ràññee sëriñ Ousmane Mbaye mi nga xam ne mi nga ànd ak moom ba te bàyyi ko Bilbao di nuyu itam soxna May Dia ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñëpp. di am mbégte lool nag ci dalalaat leen ci barab bu tedd bii muy seen barab bu ngeen xam bu ngeen miin bu ngeen sopp bu ngeen nangoo liggéey la Serigne Touba ñu gis seen pasteef bu rëy ci liggéey bi ak seen taxawaay bu rafet ci liggéey bi ak soññ gu ngeen di soññi mboolem taalibe Serigne Touba yi ci liggéey bi nangu cee ñàkk seen alal nangu cee ñàkk seen waxtu nangu cee ñàkk seen doole di ci sonn guddi ak bëccëg waxtu wane ngeen nekk ci waxtu wane ngeen di ci soññee ngeen tànn boo xam ne bu jotee kenn ku nekk ci yéen day ñëw bàyyi lu mu doon def fii ak barab bii setul ba mel na mu war a mel lu delluwaat këram ci ak njabootam lool nag jëf ju rëy la joo xam ne sedd na xolob képp ku bëgg lu baax waaye ku xam pas seen pas-pas fi mu toll ci sëñ bi xam ne nii rek ngeen mën a jëfee jëm ci moom. pas-pas bu rafet boobu ñu seetlu ci nag ak yenn ju rafet ak taxawaay bu rafet bi nga xam ne moom lañ gis ci yéen loolu moo tax liggéey bi yëpp bu ñu sañoon luñ ci yëkkati lu mu mën a doon rek dañ koy ànd ak yéen ba mu jeex takk xëy na lii nag ni mu bindoo nga xam ne euh, daanaka li ëpp ci ñi tax ñu di ko def mooy way néew doole yi nga xam ne dañuy dox ba egsi fi moo tax bis bu set dañuy tànn ñenn rek ci ñi nga xam ne ñoom lañ seqal ñenn ñi di ay wëlëre ñenn ñi di bokk ñenn ñi di ay yëngukat ne ñun yoo xam ne dañoo nekk ci dëkk bi di yëngu ñu sàkku ci ñoom ñu ñëw teew fi tey nag ñu sàkku ci suñ biir ñoo xam ne danoo bokk ci ñun ànd ak ñun liggéey bi te di taxaw taxawaay bu am solo boo xam ne fiñ taxaw wax dëgg yàlla buñ fi taxawutoon ab vidde lay doon ñoo tax ñu taamu leen tey ji sàkk woon ci yoon ngeen ñëw teewee liggéey bi ba gis ko xam ne li ngeen di jëf ndax bu fekkonte ne da ngeen yem rek ci ñëw buub raxas ba mu set ngeen dellu sax mu baax waaye da ngeen cee boole lépp luñ fi def muy koor muy màggal muy gam muy lu mu mën a doon dangeen ngeen di ñuqiwaale seen alal ni ngeen di ñaqee ni ngeen di ñuqee seeni i alal def ko ci liggéey bi. nit nag lépp loo xam ne mu ngi ci yëngu di ci sonn day laaj mu ñëw seere liggéey boobu nu mu mel loolu dong moo tax ñu woo leen fi waaye xam nañ ne su ngeen sañoon lu ngeen fiy def bu ngeen ko fi joxee da ngeen da koy won ginnaaw dem du ngeen ko xoolaat du ngeen ci def leen waaye nag rafet na jaadu na nit lu mu bokk mu xam nu mu doon xam nu mu demee loolu moo tax ñuy sàkku ci yéen bés boo xam ne da ngeen fiy ñëw doge fi gis liggéey bi ni mu demee gis ñi fiy doge ba nga xam ne ndax gis bokkut ak ñu nettali la li nga gisal sa bopp sa bët moo gën a ëpp solo li nga xam ne dañ la ko nettali te ni koy xamee it buñ la ko nettalee woon doo ko xamee noonu lii rek moo sabab soxna si ñu leen waaye xam nañ seen ñàkk jot lool xam nañu itam la leen di xaar xam nañu ne mënu leen a euh, wuute lu bari ndax la ngeen di da ngeen da di taxawee ci lu mel nii ci fa ngeen nekk waaye biñ ko sàkkoo ci yéen nag ak xar yooyu yëpp teewul da koo bàyyi ñëw kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax tey ñaan ci barkeb Serigne Touba mii ngeen di liggéeyal suñu borom bàyyi leen fii lu gën a yàgg yàgg yàgg te may leen ak wér euh, defal leen jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira waaye nag jàmmi àdduna ji yàgg lool ba ba ba ngeen amee ko ni ngeen ko bëggee lépp ñoo ngi sant nag aji làmp Diagne ak aji Khady Gueye ñi nga xam ne ñoo jiitee ajuma ji ak ñi nga xam ne ñoom lañ àndal ak bokk yëpp soxna mi si la nag ñi àndal dañoo jàpp ne ñu tuddee soxna si rek doy na tudd nañ ñëpp dafa mel ne sax même ñeneen ñii tudd ñii ñuy tudd sax lañ jàpp ñoom te ñu jàpp ko ñeneen mooy bu ñu tuddee soxna si yóbbaale na ñooñu ñëpp ndax mooy sunu wayjur mooy ndey mu ngi yàlla def na mu bokk ci ndey murid yi ummahatul muridin yi ci la bokk kooku nag suñ ko tuddee mel na ne tudd nañ ñëpp fu mu taxaw itam mën na faa wuutu yoon wépp loolu moo tax ci aw turam rek la ñuy jaare sant ñëpp gërëm ñëpp ñaan nag ñu teewaat fi ay déwén yu bare bare bare bare bare kenn bañ a danaa koy faral di wax lu baree bare danay wax ne su fekkoonte ne euh, mbir mi yoonu murit am na retraité wala am na wàcc kon na ngeen wax dëgg yàlla mënoon nga wàcc dem noppalu ndax euh, ba liggéey jotee liggéey nga liggéeyal nga Serigne Touba ba mu gërëm la boo wëlbatikuwaatee nekkaat ci kanam liggéey ab soññee nga ci mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk sa gannaaw ndax fa ñëpp yi sàkkoo fa ñëpp di bëggoon sàkkoo ji suñu borom dimbale na la ba nga sàkkoo fa te jàpp nañ ne la nga fa sàkkoo am nga ko waaye nag taxul nga doylu da nga gën a yokkaat takkaat sa laxasaay gën a jàppaat ci liggéey bi di soññi nga xam ne képp ku la ci gis rek ab soññi ngay doon ci moom. ba ci nun ñii nga xam ne say doom ak say sët lañ kenn koo ci nekk ñu la gisee ab soññi ngay doon ci noonu loolu nag ndax euh, xamme wuñ la ña nekkoon ci kër Cheikhul Khadim gi ndax noonu rek nga taxawee ci noonu waa barsax yooyu nañ woon ci mag ñi noonu ngeen taxawee ci nun ñii kon nag suñ leen gisee ci kanam bat mbir rek dañ cey ñeme dañ cey sawar te dañ cay am yaakaar kon nag ñu ngi lay sant bu baax ci nii ngeen def yow ak soxna Mawa Touré ni ngeen def nii wax dëgg yàlla rëy na ci ñun lool lool lool lool lool ndax yow mi jëmmi sëriñ Souhaïbou lay xoole soxna Mawa Touré jëmmi Cheikh Abdoul Khadir lañ koy xoole te loolu li nekk kon nag su ngeen taxawee ci kanam mbooloo mi taxawee fi jëmm yooyu képp ku nekk seen ginaaw rek dana sawar képp ku nekk seen ginaaw dana sawar te dana ko wóor na itam li muy def sëñ bi dana ko nangul loolu nag doy na sëkk ak yaakaar doy na sëkk ak cant doy na sëkk ngërëm ñu ngi leen di ñaanal bu baax suñu borom gën leen a dolli xéewal di ñaanalaat seen doom yi nga xam ne ñoo nekk ci biir liggéey bi ñoom soxna Njaxatum ak mboolem ak waa ak soxna maam euh, ak soxna May euh, May Muntaxa ak ñëpp rek seen doom yeeg seen sët yi nga xam ne yeneen bokk nekk ci biir liggéey bi yëpp da ngeen daan ab soññ ci ñoom doon ab soññ ci soxna yi ci des doon ab soññ ci ñun itam euh, soxna Bintu sëñ Abibu sëñ Fallu nee na moom ko gis ko ko may góoram na yeey moom moom moom bàyyi nañ ko déedéet waaye moom moom kooku moom kooku kenn du la ko weccee <laughs> ñu koy sant bu baax nag moom itam Mbàkke di ko gërëm rafet na taxaw rafet nañ rafet nañ ay taxawaay lool soxna Fadja ñoom ñëpp fàttewuñ kenn ñoom ñëpp rafet nañ ay taxawaay lool kilifa yi nekk ci daayira bi yëpp daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jërë ngeen jëf yàlla nañ fi teewaat ay at yu bare bare bare bi te suñ borom dolli seen kattan dolli seen wér gën leen a sàmm gën leen a aar gën leen a musal wuutu leen itam ci njaboot gi nga xam ne ñoom lañ teg seen loxo te yaakaar leen ci ñu defal leen ci lañ gën a bëgg ci barke Cheikhul Khadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa